Assalamualaikum gay Assalamualaikum asalaamaaleykum ngeen ngi ci zambo TV tay nak champion bu mag lañ seesi di Martis martis nuy na la. affaire naa la. waaw bu pare kan moy martis martis moy champion bu Malfafa ko. Hmm. Hmm. maa ngi wa waa Malfafa ko yëpp. Ya. fàttewuma kenn xam yépp ya. yëpp champion yi nekk bala may wax nak maa gërëm Jean Noël. jean bu Joal Jean-Noël ku baax la quoi bëgguma trop trop trop yàlla tax quoi liggéey dama si mbay délégué dafa dëkk caalaan nekk sama rakk waa sama rakk bu baax a baax maa ngi kontaan ci moom bu baax ak Bira Caalaan Bira Caalaan sama rakk la quoi ku baax la amul benn problème te moom dundam moom dafa neex quoi te yàlla tax di gërëm it Zambro TV kontaan ci ñoom baax baax baax di bëggee waa Juwaane ñëpp di bëggee it aussi waa Ñoojoor ñëpp ñëpp kenn mar looj mar faafa sambu jiloor yaayem simla joof yoor ñëpp kontaan naa ci ñoom baax baax baax di bëggee waaw Marquis bi nga nuyoo par mhm. loolu moo andi Marquis bi wala sirno la wala mooy sa bëggee noo quoi non martis mm-hmm. martis non loolu pour la quoi mm-hmm. pour boo xamante ne boo xoolee nii mm-hmm. am na benn paa bu ñu wax euh, Fapa Alou Bada paa boobu nag bi ma woo si mbapat martis def maa ne ñun gars yi dañ dégg naa ne gars yi dañ lay woo martis waaw ma ne ko waaw mu ne ma martis waaw mu ne ma martis kon yow yaay tiis éli bi quoi. ok waaw yaay tiis. kon tur bi foofu la jógee. waaw mu ne ma martis jëlal tur oke, tur boo ko jëlee. di nga am li nga bëgg quoi. te yàlla tax. waaw mais yow kañ commencé bëri ak lu dugal ci làmb. non man lima ma dugal si làmb nag. mënu ma ko wax parce que loolu. secret la quoi. secret secret la waaw. secret bu mag te aussi làmb. dafa métti. te làmb du caaxaan quoi. te làmb it aussi maa ko buggal sama bopp quoi mm-hmm. te yàlla tax mm-hmm. te làmb mm-hmm. yàgg naa dugg si làmb parce que làmb moo yàq sama njàng quoi moo ma yàqal lépp daal ma topp làmb ji di boole. ban année nga commencé bëre. non loolu moom yàgg na parce que man bu dugg si bëre. doo fekk man xale laa. Ah, ok may gis nii. <coughs> bi may jël nag. boo boo ma gisee sax. doo wax ne kii mun na jël nag. yow fan nga njëkk a bëre. waaw. <laughs> Marlooj. waaw. Mm. bëri naa bëri naa foofu Mbapat. Mm-hmm. jël ko. Mm-hmm. ma ñëwaat bëri ndangaan euh, kii ñu ngi ko waxee pour poussière. Mm-hmm. final foofu. final bi niil. léegi ma jóge foofu. dem dëkk bu ñuy wax euh, Jambugum. Jambugum waaw ma jël foofu. léegi ma jóge foofu. ñëw marfaafa ko ma jël foofu mhm. léegi ma jóge foofu jël fene dëkk bu ñuy wax Moundé mhm. waaw te boobu xale la boobu xale la mais yow Martis ba moment la sentir ne wax nga doon ndox quoi <laughs> non maam bu ma duggee si làmb rek mhm. si laa commencé di jël làmb yi quoi man comme sonnuma si bo rek comme ah. maanaam ma dugg nii di daanu di daanu di daanu noonu noonu damaa dugg si làmb rek di jël lamb yi ubbeeku quoi voilà di mm. jël naa joof jël naa fi jël naa yaayam mm-hmm. jël naa si mag mm-hmm. loolu daal mënuma ko kon jël naa mm. dëkk bu ñuy wax mbudaay mm. jël naa foofu non loolu bu ma koy compter nii fi la fanaan voilà. kon yow daal da ngaa dugg daal sànq yow mi boo nga doon ba quoi. may jël lamb yi normal. Mhm. di kontaan ñëpp si ñëpp daal parce que mbor yi dañ maa bëgg quoi. Mhm. mbor yi juwaala dañ mhm. maa bëgg te yàlla tax. maa ngi ñaanal xale yi ñoom Maurice mm-hmm. Maurice mi champion la mm-hmm. caporal voilà caporal bu mag la mm-hmm. maa ngi ñaanal daal maa ngi wax ne waa Joal ñëpp pour ñu jàppal ko quoi parce que olof yi mooy loolu waaw voilà maa ngi wax daal pour waa dëkk bi ñëpp jàppale ko xam ne Maurice champion la lu muy def mun na ko te bëgg na ko quoi maa ngi ñaanal ñëpp daal pour ñu jàppale ko ñoo joori aussi am naa foofu xarit bu xamante ni kooku def maa buggal boppam quoi. Mhm. ñu ko wax Aliou Cité. Aliou Cité waaw kooku voilà Aliou Cité mhm. moom. Mhm. nit ku baax la. ñu dund ak man dund bu rafet. waaw mais maa ngi gërëm ñëpp waa ñoo joor ñëpp di ñaan daal yàlla def foofu jàmm bu bari bari. waaw bu ñu jógee foofu Martins kan mooy sa idole ci làmb ji. man man instant bii nii. waaw sama idole. Mbalka Maak. Baltamar waaw parce que ñu duggee si làmb mm-hmm. dañuy toog di seetaan te mm-hmm. ci moom quoi mm-hmm. am ne Mbalkamay champion am na benn mbor bu ñuy wax Ousmane Liir Ousmane Liir fu ah, mu dëkk ma faa wax la dëkk waaw nekk champion bu mag ancien gloire waaw instant ancien gloire la mais kooku champion bu mag waaw kon Mbacké Gisal Mbalka Mbaak mooy sa idole quoi. Mbalka Mbaak mbër champion bu ñuy wax Ousmane Ly aussi. parce que kooku mbër bu mag la. mbër boo xamante bo boo xoolee dafa mun pore te bu na lu muy def bu gisee lu bëre sax di nga bëgg quoi. ok mais yow ñaar daga ko nga am. bari na loolu ma ko compter. parce que bu ma ñuy jógee si lamb. Hmm. di commencé di bëre poussière hmm. jël naa Masulu sax. Hmm. jël naa Marlot. non loolu mënuma ko compter. am parce que dëkk bu ne man waaw am naa ay bëgg na waaw tànn tànn ñaata nag nga am. na loolu. Hmm. Euh, kenn du ko compter. kenn du ko compter ah sa gën a quoi voilà ñuy def quoi. ok mais yow Marquis ban mbër nga xam ne maanaam yow boo gisee ci géew bi nii. waaw hmm. du yomb quoi da ngeen bëgg tëgg wala def affaire yooyu noonu. waaw comme par exemple boo gisee benn mbay jëlee hmm. ci géew nii. doo ko may jàmm da koy sonal di tëgg wala def yooyu ban mbër. naturel euh, cas boobu quoi. waaw man waaw. boo gisee jigéen ñi xam nga doo ko may jàpp nga ni ah. yooyu noonu. non man ñëpp ngay gis ni mm. que man mm. ragaluma benn mbor. Mm. ragaluma benn mbor. mais am na mbor boo xam ne boo gisee ni ci jigéen ñi doo ko may dara. non bari nañ. champion yi ñëpp. bu ñu dajee si lamb. dañuy tuppalante si lamb ji. comme exemple Kaabale temps yii gis nañu ak Doudou Sall ndanga nu fa demee noonu. non champion la aussi. Mm. champion la parce que bëre moo mel noonu quoi. Mm. boo duggee si làmb. Mm. da ngay war a nangu nga bokk si làmb ji. Mm-hmm. parce que mbër warul nekk si làmb nga nekk si làmb di taxaw. Mm-hmm. wala ngay dox si làmb ji. Mm-hmm. wala sax ngay si làmb ji sonn te doo ñàkk. loolu man mais tax boo gisee du jaan may jàmm. la rek. bëre la champion la champion la. ñëpp ñoo ma xam. moom nit xam na ma man nit xam naa ko. ñun ñëpp ay champion lañ loolu tax bu ñu duggee si lamb rek ñu de bëgg nañ ko quoi te yóbbu ok mais yow kan mooy sa bête noire ci lamb ji man waaw waaw bari na bari na parce que ñun dañuy bëre si lamb hmm. parce que man mi ngay seen kon man nekkuma mbor boo xamante ne damay comme duma bëre quoi gis nga mbor gis muy lamb yi chaque jour mbor boobu dina am bête noire parce que day bëre si lamb yi ah, ah. mais mbor boo xamante ne comme doo bëre si lamb boo boree si lamb ji balaa ngay bërati nga am weer non mm. non du ñu daanu si lamb yi mm. dañuy daanu tos yi waaw yow est-ce que am nga man ah. waaw amoon naa écrit sax mm. mais léegi xam rek damaa dem ba si kanam ma génn si écrit boobu ñëw si village di ko si làmb yi fii nii quoi. waaw ah, ok géejawaay waaw mosul. ban équipe bi. équipe Père Balla. Ah, waaw ok mos nga am combat ak. am combat mhm. si laa génn woon. Mhm. parce que dañuy nekk foofu di sonn. Mhm. waaw di wut combat da toog foofu quoi. Ah. day diire nga nga am combat quoi maanaam aw ma sens. sens est que nekkul ak gars yi tuubi loolu moo tax ñemewuñ jël avance. tugumbal tis bi quoi. non xam nga rek. Mm. bu ma demee foofu. Mm. daa am ñu ma fekk mm. am ne sax ñoo ma mag te amuñu combat. kii boobu moom dafa xat. ah mais gars yi bu ñu déggee manqué si ma leen avance bi. waaw man bu fekkoon ne man. comme damaa nangu toog foofu. dinaa am combat. mais bëgguma toog foofu noonu. amoo combat ah ok mais yow mag si am ci làmb est que yow mii am nga jàppale. man waaw am naa jàppale mais jafe-jafe bu amee. Mm-hmm. da ngay Mm-hmm. parce que gis nga làmb mm-hmm. booy ber mm-hmm. bi gars yi miin la si làmb day am ñi nga xamante ne dañ di jaar ci suuf di la yàq ñii di jaar fale quoi parce que làmb moom noonu la quoi parce que booy bëre ñii di la takk gis nga takk si làmb baaxul parce que am na ñoo xamante ne dañ lay takk sànni ko ci géej te loolu day yàq mbor quoi ay champion bari ngay gis fii ay mbor lañ mais loolu moo leen yàq quoi am na ñoo xamante ne mhm. dañuy nekk si lamb yi di yàq mboole loolu baaxul quoi mhm. parce que nit lu mu xes ba bëgg si àdduna di def mhm. dañ ko war a jàppale jàppale ko voilà loolu tax gàllankoor yi dañoo bari mais man bu nekkul gàllankoor waxuma ne mbor dina ma daan de waaye du yomb mais yow lan ngay conseil booy booy dugg ci làmb xam nga seen talent loolu lañ ci kontaan rek kontaan bu baax a baax a baax hmm. kontaan bu baax parce que aussi mbay délégué loolu chaque jour ñu toogee rek dama koy wax loolu ma ne ko yow boo góorgóorlu woon si làmb to sax ko dawal hmm. waaw parce que gis nga làmb léegi mbay délégué voilà parce que làmb léegi hmm. am nañ njëriñ quoi loolu laay wax suñu rakk yi suñu xale yi nekk mar mm-hmm. booy ñëpp comme kon ñoom ku booy mbor bu ñuy wax pour mari mm-hmm. ñu koy wax baaban mu mm-hmm. loolu laa ko wax ma ne ko yow boo góorgóorloo si lamb di am dara ak yeneen booy yi ñoom Badara Binjaar ñu ko am na ñu wax euh, Ousmane Kango yeneen booy ak ñoom Samb xam bu ma kiiwee daal ak ñoom Babou Dieye Boros. Hmm. ñu ngi koy wax Boros. voilà ok ah, voilà booy boobu champion la. Hmm. ñu ko. Hmm. donc mu tegu mu nekk roi a arènes daal. voilà. mais daa am yow bante bu ma wala bu kii quoi parce que gars yi daf may dañ may laajte chaque jour partie bi moom si seeg laa koy waxee quoi maanaam ak ñu waxee ndaawa. Mm-hmm. est ce que magdisna laya den yinam parce que yen nana leg leg magdisa lowma a ƴesa ten jeyofu ayo bes ɓofa ɗot magdis fawum ndet i tegno kan fop i leya nen que i mbaxa an ni magdis ten na leya den wiin we na sosa nina mbaga cunel non parce que gis na lambu ni mm-hmm. am ay commentaire yi am ne dañuy wax mm-hmm. parce comme maanaam ma toog nii sax jot loolu noonu ma toog comme di wax ne mbor bii booy wala lii ak lii quoi mais nit ñi ñooy wax loolu hmm. man loolu duma ko wax quoi kodi comprendre nga man kis kaanaki de la kaana jigi non deno comme deno hmm. hmm. affaire comédien isa leyaani waaw xama man moom mooy loolu duma wax loolu quoi mais leew xanaa daal goyne inventé voilà ok léegi yow lan ko sa dernier mot looy tàggatu man ah kontaan rek kontaan si ñëpp des bérets, quoi, mm -hmm. Mm -hmm. borom baax la quoi nag moom fii mhm. di fii dund bu rafet mhm. gis nga xam nga olof yi mooy loolu voilà aussi kontaana na fo mhm. i weke mofna meke ay moisine i jantal ke fop mbay délégué yin fop bira calan kontaana na juwala fop i wasimol leng ngoor ke mbay fi maak we fop kontaana na den aussi kontaana aussi mar lot mar ko mar sulu maro wanje Euh, a jega koor oxa andoona yee yit aussi :fra mhm. euh, saay nu layma rek bo tig wala um waxtaan fo wiin wala télé :fra aussi :fra mhm. fook um jik win quoi :fra fo ɓaal o koor oxe den Gorgui Sarr Simal euh, wa fa in mosu mhm. gidma Simal ha ah, mhm. mhm. mhm. bo misal ande fagi no ñomena koñala a ba was jikom ten fo a paax quoi que a ñowa ñow fa ino ñow mosu i simala fop a ñowa fa ino ñow mosu o ñowola andona ye ñow mosu ref bo andona ye wiin we fop caate a mbi ñowa fa ino ñow mosu simala jegin ndafid den quoi roog soom jegu ndafid den E yam mirale dellah ya milliane maga mhm. genu simal fokoro ha dellah e fatmatou mhm. yen ñowa fa in ya tenel diago mhm. yen ñowa fa in mago ñow masu ya seyu aussi limanga sax wama joum en ñowa fa ino ñow masu wa ndef na mbinna fop parce que o kiin sa nu refona mino ten nu na njega ñaar ɗik a refa nga to ñowole mosa xano an ten tig a refa nga to aussi tena bug o moof xano an ten tig mais waga de ndef ya nuna ye nden in bo mbugu sey taɗlam kon simala fof mm-hmm. i mi gidmaden mm-hmm. to konta nanadena ba mm-hmm. ya mari faneke ya zanuel i borom baho ñowa fayino ño ke, e diwala i aussi konta nanotena pa pa pa ñananan rogo yaale a ya ciin jam ciinoo da pa pa pa mu ha nan adna rek xeɗan rogo yaala gaynakin dal fi maago yake am ne dendes maago zanoel mais ñana naden rogo yo allah tiyaden jam quoi a tiyaden jam fo mayu ɓe binne fop dal la zanoel ete gorgo londe ɓandon o e joom jege découragé ku refno warse kof xano dayin kaga yitten leyma maurice i leyine mew gorgo loye ku refno warse kof xano dayin no kin wagiramoño ten kidma foppu dal voilà wawi ndig ne ha ley ka o message lancé ka état be état eh, mi anno kam titan bo presque mois d' aout saison we waɗo paxatine a mbexin fa i jig lefe nan men xa wo um kadu wo ɗong ten quoi leya ndigil parce que aussi mi roga mm-hmm. fiya jegama jeg kaarit to andonaye médecin ndef mm-hmm. i jegama jeg kaarit ka andonaye médecin def mm-hmm. i aussi sax wa amo lima den quoi parce que am buga xamam bugo aussi to roga tax i parce que xaye ga o kiin ku xa garna na adna a gar to rooga fi'in parce que ka tig mboole ka andoona yee mboole fop ndeerum i o kiin nu layna teen xano yoq teen ga'a yoq we a mbel laya ndaa leeg leeg o lay bo lay ka andoona yee warino lay i ndaa aussi lay mosu ke to o feet a feetanga wiin we nanangaan rek a content a refa ke andoona yee ten moƴu i no ñoow ole quoi ga'a jirle comme roog ten fudniidun mm-hmm. a fadiida aussi xam mm-hmm. roog a watnin fa jam mm-hmm. binaay daan rogo yàlla yo wat nin o wat nin no jam bo kiino mm-hmm. kiin ko xa o jallare mm-hmm. rogo yàlla moƴumo wetan maaga ke bugonoma o jegin mm-hmm. roga fi jam fam may waaw waaw kon gars yi mag gis nañu ƴettu te xaye meke nam palma le ngeeta aca ke cuuɗanum rendez-vous na semaine fa lakas fam invité fa lakas quoi jaajëf